indil incha allah ñu déggee ci kàddu yooyu den ñu waxtaanee ko euh, lii amaana moom moo war a nekk euh, lu jiitu ci ponk yi ñoo waxtaanee bu ci xëjee ñu yokk ci leneen incha allah ci kanam itam yi ñu ubbi laan si euh, bokk ko ak yéen ci li nga xamante ne mooy kon ni ñu koy defee saa su ñu gërëmaat leen beneen yoon kon ni ma ko waxee ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ci ci jotaay bi ñu dooree ak li ma ko li ma junjee. Euh, woon euh, li nga xamante ne mooy euh, mbir mi mooy xew-xew bu am fale ci booda diggante Gambie ak Sénégal ci boori southern part bi mooy Sénégal seen ami bi dañ songuwante woon ak MFDC separatisti loolu nag mu juróon tension foofu ci booda bi tax ba am ñi nga xamante ñu ngi daw su ko defee ñu ñu ñu dooree ak loolu Euh, den su ko defee euh, ñu ñu ñëw ci ci kanam euh, waaw ok su ko defee kon mun na ñoo ñëwaat loolu ci kanam ñu dooree ak politique bi donte ne sax lii moo gën a fes waaye ñu dooree politique bi kon ni ma ko waxee woon Mamadou Sabally moom tamit gannaaw buñ appelé li nga xamante ne mooy nuñ ko rejecté su ko defee am ñu seet appel boobu naaw appeal against decision of the IEC returning officer pursuit of section 49.5 uh, of the Election Act regarding rejection of nomination uh, uh, paper of Mamadou Sabal. Now, the Commission uh, to acknowledge uh, the receipt of your letter, that is Mamadou Sabali, and of uh, 11th of March 2022 on the above subject matter, and conveyed its decision pertaining the rejection of your candidate. So this is the reply from the IEC to Mamadou Sabali, saying that by the returning office. Uh, of Brigham administrative area. At its session held on the 12th of March 2022, the Commission upheld the decision of the returning officer that your nomination has not uh, complied with law uh, as per the application of Section 90, subsection 1 uh, of the 1997 Constitution of the Republic of the uh, Gambia. Uh, and um, this was signed by the IEC chairman, Alaji Aliou Momar Ndiaye su ko defee euh, loolu moo nekk tontu bi nga xamante ne euh, Mamadou Sabally boobu la euh, jot ci IEC gis ngeen mbir mi moon ñang keroog ñu ngi ko bëggoon waxtaanee àjjuma waaye jotuñ si addu parce que nu programme bi demee woon waaye li ci gën a fees mooy gannaaw buñ ko rejecté moom Mamadou Sabally appel na waaye IEC nanguwuñ appel bu mu def su ko defee ñu maintain ñoom seen décision bi qualifié tout pour bokkat ci li nga xamante ne mooy. Euh, ci élection bi xam nga nag li ko indi ci tënk rek mooy boo fàttalee ko ñoom li ñu seen sukkandiku mooy gannaaw saabali moom bokk nag ki nga xamante ne jaanek commission bi dañ ko tuddoon euh, ci commission bi lu bëri taxoon nag euh, bu government bi génnee white paper ci loolu lañ sukkandikoo woon ñu ko tuddoon ba baan ko fu mu nekk ni du mun a jël benn public office fu ñu toll ci réew mi foofu lañ sukkandikoo ba tere ko li nga xamante ne mu mun a taxaw ci parliamentary election yi. nekk na loo xam ne nii. comme mm. noo ko waxee rek ajuma bi dafa xawoon a taayit wante buggoon nañ ko waxtaanee bu baax a baax. parce que nekk lu nga xam ne dafa soxal euh, ñi nga xam ne ñooy réew mi. Mm-hmm. pour ñu xam fan la nekk. Euh, li ma gis sax mooy ne comme AIC nekkoon na seen bëgg bugga rek leen taxaw di ko dafa am fuñ ko teg si loi. Mm-hmm. Euh, mooy si téere réew mi nga xam ne moo tënk réew mi moo si doxalin si loi. Mm-hmm. ñoom foofu leen sukkandiku wane ne du mun a nekk parce que man xam naa ne maam mun na si dina ma seede. training bu ñu amoon ak ay si two days training fële mhm. si hotel training bi. Mhm. ñu ngi fa doon di wax lu mel noonu because uh, according to di law bu ñëwee men mention nañ ko fa sax. Mhm. ne according to law moom du mun a def li nga xam ne mooy qualifier te yaakaar naa ne sax ñoom seen bopp sax du ñàkk seen team bi wala seen parti bi ñoo xam ne xam nañ ne. saabali pour mu nekkoon di qualifier dina nekk lu jafeñ so I don't know why si yan clause si leen bisoon wala si yan lan leen amee ñoom. Mhm. bi am yaakaar ne. saabali dina war a qualifier. saabali moom góom-góom bu mu jàpp mooy. Euh, euh, li nga xam commission bi wala li liñ indi amul benn code of law because moom buñ bu ko ga ngóor gi baane dafa appeal ñoom seen décision te loolu mu ci yoon kanam lu wax mhm. code bi jeexagut ba léegi te code bi waxul ne nguur lu ñu wax loolu mooy am wala am soo moom jàpp na ne loolu waru tooñ sukkandiku ci li nga xamante ne mooy ci constitution bi pour baan ko wala bañ moom mu contexte loolu daal mooy mu contexte ci élection bi loolu moo nekk mbir moom noonu la ko gisee waaw gis da méngoo na ak yoon waaw waaye li problème ñoom duñ dee kóot seet lu luy ñoom lu li constitution bi indi waaw section bi leen laa indil mhm. na la ku ne nangam ku sol mbubb bu ñuul mhm. wala ku dajee ku sol mbubb bu ñuul mhm. yow doo mun a bokk si nangam moom sololo nañ ko mbubu bu ñuul dajee naa ko sol mbubu bu ñuul léegi simi na ko dem na jàkkaarloo ak ki ko solol mbubu ñuul ndax foofu leer na oo leerul ASC du mun a dépendre si mhm. moom lu muy aayee rek ku sol mbubu bu ñuul doo mun a bokk si lii te sololo nañ ko mbubu bu ñuul mhm. moom nag wii dina ne solu ko woon loolu nag wii dina solu ko woon loi moom defu si li ko war ne solu ko woon li yàlla taxoon mu solu ko wala solu ko pour ba mu mun a bokk lu lu section bi indi rek mooy ne du mun a bokk bi ko que am na lu ko baare loo xam ne ne du AIC ñoo def loi boobu constitution ni Gambia 1997 constitution moo dogal loolu parce que loolu nag nekkul lu nga xam ne lu boo demee di nga ko gis dafa nekk lu nga xam ne nii mhm. beesuñ ko leen ne mhm. si constitution la moom itam lu ko taxoon mu dem yoon may na ko pour mu demee woon noonu léegi yoon waaye na ko pour mu bind di seemtin AIC dañoo rimeen di seemtin loolu amul luñ mun a ceeñaat ba AIC indi lu mel noonu so loolu daal moom nekk na lu nga xam ne euh, si si ñu bari duñ mun a bileem AIC bi ko constitution bi moo xaatim ne ku nangam ni ku nangam li ku nangam doo mun a bokk si élection bi te loolu moo dal saabale saabale appelé woon na waaye bis gis nañ appelé na waaye gis na ne ba léegi code bi defut lettut firiwut te léegi AIC du mun a dépend si code bu lépp lettut firiwut te loolu sax dafa am ay période bu moo laajte soo moo tax pour mu bokkoon si élection bi dafaa nekk lu nga xam ne lu jëfal uh-huh. uh-huh. nekkul lu bette nekkul lu bette man absolument bu ma demee si training bi ba ñëw uh-huh. man xam naa ne sax na xam naa lii nekkul lu betti te sax yow soo bàyyi xel man wax naa ko xanaa ko ne bro I don't think ne di nga di nga di nga di nga di nga di nga lifit di nga qualified. est-ce que moom chance la doon ut wala comme seet na donte ne sax xam naa ne moom tamit du du du du ñàkk ne yegoon na nu man aruma naat ba nit ñi nuñ doon wax ci ci ci dëkk bi xëy na saabali du neen ko reject duñ ko jël ak yooyu. Mhm. waaye still ak parti bu mu bokk UDP ñu bari tamit gom ne parti bi am na ay kàngam ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci wàllum luwa waroon nañ ko advice. ndax bu demee ci kaw loolu mën nañ ko baane euh, euh, du mun a jàll ci ci ci yëf yi am euh, xëy na tamit parti bi ñoom ñoo ko war a dimbale ci loolu. waaw parti bi waroon nañ koo dimbale si taxawaay boobu parce que xam na ne loi bi constitution bi moo ko aaye so léegi lan lan yaakaaroon dafa tuuti trop pour nit ki war a dem di si def nomination jos appel na nguur gi dogalagul dara au corps bi dogalagul dara loolu dafa ndaw si parti boo nga xam ne ñu ngi wax ne moo doon ten lawyer ñu ngi fa. soo definee dafa xaw a doy waar tam. ñu dugal ko si lu mel nii wel nag lu ñu def aayul dem na uti amut delluwaat na si loo loo bi aay na ko léegi lu si des mooy mu dem xaar luwaa wala xaar beneen jamono la loolu moo si nekk li si des nag mooy dafa am lu si xew lu waroon a mun a ñàkk a xew. Mhm. because reject bi munoon na nekk ay si munoon na ne use lu yoon may na leen ñu reject ko but at that moment munoon nañu koo bàyyi moom mu dem. ñu bind ko reject ne la pour in you to stamp for euh, comme niñ koy accepté ñeneen ñi mo ñu bind ne moom accepté ko bu ñu so mu li pour loolu tam pour security la ko lu fa xew that day bir kaama mhm. su fa anything happenon ay ci amna ci responsibility ko defuñ fo yefi professionnel xamna na ne kii mu ngi and ak ay nit te xamna ne kii mairie sax mu ngi ci those people because mhm. xam nga election présidentielle élection mi nu fa demee mhm. sen sen candidate bokon na ci ñu ko reject So kooku nga reject ko reject results ñi ñëwaat parliamentary. mu amaat the same thing yow war nga xam ne kii waruma koo reject ci biir supporter ñu mu àndal daf at the same time waroo koo lifin da nga war a bàyyi mu dem nga def yëfi profit bu that day anything can happen there hmm. ñaareel bi mooy ne am na leneen lu fa xew xëy na mun nañ si ñëw si mbiri sécurité su fekkee ne dañ say taxawaat mu ne waaw nañ nañ nañ ci que kere kero ajjuma bëggoon nañ ci wax waaye mënuñ ci wax léegi maam euh, gis nga li mbir mi demee ay AIC dañu reject euh, euh, appel Mamadou saabali léegi ëllëgu Mamadou Sabally ci politique lan la ndaw la Euh, te tamit ñu am nañ ndaw yu bëri ñi ko ñi am yaakaar ci moom bugg ko tamit te tamit ñu jàppoon dafa am xam-xam ñu buggoon tamit mu waroon teewaayam ci National Assembly bi daf doon nekk beneen beneen yokkute ci ñu bëri luñ ko jàpp waaye tey ni ñu ko euh, ni mu amutee sens pour dem euh, loolu noo ko gisee ak tamit politique ci réew mi ñu bëri jàpp ne na jot na sax tey mu bàyyi affaire politique yëngu ci yeneen ak yu mel noonu da yow am nga gis-gis boobu. waa jërëjëf Amadou am na solo ndax kees yi Mamadou Sabali ak euh, xaaroon ko ci assemblée bi concerne la woon ci mm. Gambian si yëpp di ko doon bàyyi xel ndax tey dañ koy dàkkantale di Gambian pen mm-hmm. ku mun a bind la ci xam-xamam léegi nag kooku boo yaakaaree mu dem ci pencum ndawi réew mi ñu bari dañ ci am yaxinu ne kii bu fa demee dee dina teewal askan wi ndax segam xam-xamam màcc na ci wàllu bind mhm. waaye dafa am process bi lu bëri lu nga xam ne lu jot a bàyyi xel la euh, benn mooy wàllu jaane commission bi ñaar comme ni ko ñang waxee ci reject Mamadou Sabali bi mhm. am na mhm. because soo ñëwee ci constitution bi comme niñ ko bindee ay si e ni fi ñu taxaw mooy ne loi moo ko xañ waaw li nga xam ne moom moo nekk euh, mënut a taxaw man bu ma njëkkee dégg ne Mamadou Sabali dafa war a taxaw daje nañ ci bunti bureau UDP ma interview ko that was early January understand nga before February sax ñi waxtaan mu won ma ne dara mënu ko teree taxaw moom ma wane ko ne ñu bëre ngi wax ne loi bi xañ na la ne mënuloo taxaw ci li nga xam ne moom moo nekk National Assembly elections yi mhm. te loolu yëpp fi ni ñuy sukkandiku mooy ci jaane commission bi nga xam ne white paper bi daf ko tudda moom mu wane ne mënta xool li nga xam ne mooy public office waaye soo ñëwee ci Diané commission bi ñu bëri li ci indi jiixi jaaxa rek mooy. Mhm. moom demoon na ci loi ne àndut ci dogal bi waaye coming back to tamit di constitution daf la ne even yow sax su fekkee da nga dem ci li nga xam ne moom moo nekk code bi. Mhm. nga bañ li nga xam ne moom la commission bi dogal ci li la xañ ñetti at ginnaaw bi code bi dogalee ne. du set na wala setul comme fi ko doon ñang di waxe mm. nga doog a mun a am pour ñu nominate la nga dem élection ñi fal la wala nga falu ci place onosan mm. mm. xam nga loolu tam constitution bi wax na ko waaye commune baag tamit ci li nga xam ne mooy Diané ba tey soo xoolee Diané commission bi nga xam ne white paper bi moom moo ko teree demoon na tamit ba code bi dogal ak minister of justice ne li nga xam ne moom la Diané commission jël alali jàmme jaay ko teguwut ci yoon benn benn jaane commission. waaw xam nga loolu jàmme la. waaw loolu la waaw léegi xam nga jàmme kenn du naataamlee ñaawte fii fi jàmme def nga koy dàkkantale ak ki nga xam ne mooy saabali. waaw bu fekkee nit ñi dañuy waxtaan yàlla rek moo tax. non waaye xam nga saabali moom dañ ko tudd. waaw léegi waaw saabali mooy sàkku place. foofu laa lay waxee mooy ne. Mhm. saabali mooy sàkku place dañ fee ñëw. waaye boo ñëwee ci jaane commission bi nga xam ne tey moom moo put saabali ci mbaal gi nga xam ne munu cee génn léegi jaane commission boobu nguur gi fi nekk seen bopp ba tey ñoom ñoo taxawaat ne jaane commission bi niñ jaayee alal yaaya jàmm tegu ci yoon understand nga mhm. léegi nga ñëwaat ci ba tey ñoom IEC seen boppa commune baak to dem li tax tey ñu ne saabali mënut a taxaw dégg la ne issue saabali ak issue ki nga xam ne moom moo nekk Ousseynou ah. mun nga koo ñàkk a ndax Ousseynou dafa génnoon ci ne benn ñu ngi laajte solo san rek wala nañ def li nga xam ne moom moo ne constitutional reform pour élection ak yooyu ñi téye ko teg ko ci taabul moom tam mu dem ñu tëj ko ci kaso ñi génne ko bu muy dem nomination 75 percent Gambians yëpp dañ ne woon Ousseynou sax dañ koy reject on understand because loi bi daf ko wax open secret ne any Gambian if you are convicted nga mun loo dem élection pour ñi sànni la nga falu jiite place léegi nag bu Ousseynou jàllee foofu UDP li nekkoon seen xel téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom bi mooy li jàllale Ousseynou mun naa jàllale Saabale. Hmm. ñoom gëm-gëm boobu lañ amoon. Hmm. li moo nekkoon seen. loolu interprétation bi ak xam loi bi dëgg tamit xam nga loolu tamit daf si am solo. Hmm. Euh, ci mbir mi nu moo demee parce que tamit waaw parce que coming back to UDP. gannaaw Wodjana commission. ñoo toonaat ne. duñ doxalee baaxul. soo doxalee non doxalee bi mooy ci benn côté. xam nga waxuñu xam nga waxuñu jamono ji xam nga waxuñu doxalee bi waaw niñ ko jaayee baaxul. Ah, waaw alal waaw alal bi lañ rek boo mu ne dina tax li moom. waaw parce que moom moom loolu. loolu la ma ne léegi mhm. borom xam-xam yi. waaw ak ñoom saaba li. seen xalaat yëpp fi ñu ko téye woon mooy ne moom boo gisee mu taxawoon dem ci code bi ne. moom ci boppam dafa gëm ne Diané commission ni ñu ko doxalee ba moom ñi put ko accountable ne moom bokk na ci ñi nga xam ne tere nañ ko pour mu am ak ak yelleefam jiite ci réew mi mhm. jaane commission booba la code bi dàqalu ci ne niñ jaayee alali jàmme tegut ci yoon te xam nga ne ba ñuy jaay alali jàmme képp ku doon xool nga gis jaane commission ni mu doon dox da ngay xam ne lii nekkutoon yoon loolu moo fa nekkoon. dañ ko dañ ko baara baana kay. exactly léegi nag yooyu yëpp dafa am ci yëf yi nga xam ne Amadou ñenn ñu bëri yooyu lañ jël méngale ko dajale xalaat ne kon nag yii mun naa tax ñi yaakaar ne. yu sew sew yaa am fa. saabal itam mun naa rëcc ci yooyu. ok léegi moom loolu moo taxoon. mu dem ci code bi ne. moom àndul ci dogal bi waaye mm, euh, waaye pepa bi indi. fine léegi léegi mu ñëwaat ci ci ci problème politique bi tuuti man que maa ngi la doon laajte. waaw euh, saabali waaw ci politique. parce que ndaw la ñu bari bëggoon nañ mu dem ci parlement bi. Mm. parce que taxawaayam ak tamit. Euh, déggee bu mu am ci ci ci gis-gis bu mu am ci nguur gi. ñu bari jàpp bu soo doon dem am na yu bari mënoon na cee taxaw ci ci ci intérêt réew mi. waaw man loolu possibilité boobu léegi mënatut am. nit ñi mis nañ ko. Mm-hmm. Euh, moom taxawaayam ci politique yow yow nax nga ko gisee est-ce que nga ne daf ci war a continuer di dem oo oh, ñu bari ñu ngi ko waaye xëj comme ndaw la mu jéem a seet si leneen because nguur gi dañ ko baanagum te nguur gi xëj na ñoom ñoo fi war a nekk for the next five so possibility si. xanaa su fekkee ne code bi tamit jeex na dàqalu xëy na décision boobu. Mm. amaana nag mu mun a focus xam nan la mun a taxawee. waaw man pour man li ma gëm rek mooy saabali ndaw la. Mm. te man de wax dëgg fa yàlla fu ma toog nii di wax ak yow buggoon naa gis ñu mel ni moom ci assemblée bi. Mm. man amoon naa yéene boobu ndax li tax mooy wax naa ko ci bu may door euh, kenn naa tàmlewul ne saabali am na xam-xam ndax ci réew mi la jàngee. ci réew mi la liggéeyee. Mhm. nekk na fi euh, head of civil servant. secretary general nekk na fi directeur bu GRTS. Mhm. nekk na fi directeur bu Daily Observer understand nga. Mhm. loolu yëpp tey daf lay won ne bu amutoon xam-xam bi tey kenn du ko naataamle te ñëpp nangu nañ ne saabali fasaana ci kàddu bu la waxee tey lu mu la wax ci nasaraan mun na la ko wax ci alquran làkk yi nekk ci réew mi li ci ëpp yi gën a fës dégg na ko. bu toogee nu mu lay waxee ci olof mun na la ko waxee ci soose mun na la ko waxee ci english ñëpp xam ne kii lii la bëgg a wax du toog di la wax ne lii mooy araf bii mu ci am xel ñaar fi mu toogee di wax lu noonu lay expressé moom te maas yooyu lañ soxla ci assemblée bi ñu génn tey ñu ngi war a ñàkk ku mel ni xalifa pour mu dellu fa. on uh-huh. suñ amoon ndaw yu mel ni moom nga xam ne suñ waxee ki bëgg ak ki bañ di nga leen déglu ngir ne li ñuy wax. dina ko teg fenn fu lay leer ne bu fekkee sax am na political difference with any political party with any government dina wax lu lay leer ne tey du toog di xool ne lii bindee nañ ko nii mu war koo wax ngir ni ñi xamee ko nii mu koy waxee neneen te ëllëgam ci politique li ma gëm rek mooy ne na xuus mu continuer ci toog ñi fal la ci place rek taxul nga war a liggéeyal sa réew sa kàddu rek tey boo ko saxalee ci dëgg ci ne réew mi mooy li ma yitteel askan wi laa gis Amadou. Uh-huh. waruloo am lenn lu lay discouré ci ne. éleguñ ma pour ma jiite ci place wala appoint nuñ ma ngir ma nekk ay ministre loolu moo war a tax ma bàyyi politique loolu gëmuma ne kon ñun mun nañoo gëm ne saabale mi ñu doon xaar ne buñ ko dugalee ci assemblée bi dina taxawal askan wi xëj na xëj na nuñ ko baanee moo tax mooy ñi di waxee noonu parce que tamit fekkee dañ ko wax liy dëgg ci réew waaw non loolu moom dégg la loolu am na ko am na kàddum pour mu wax am na kàddum pour mu bind nit ñi xam ne saaba li moo wax lii lu fiy dox te mu leer ko ne uh-huh. lii dee warut te gënut pour askan wi mun naa taxaw mu wax ci ok loolu am na solo séegi moo ñan léegi balaa ñëw continuer rek ci leneen ñu euh, desandi ba léegi ci loolu parce que dafa mel ni da nga bëggoon nga laal keroog xew euh, ci Brikama da nga jàpp ne nuñ ko yaa ngi wax ne ay si mënoon nañ koo gën a euh, doxalee ren xëj na ñu ñu consider nit ñu mu ànd ak yëfi politique de tension moo na am mm-hmm. xëj na rejection bi sax comme ñoom xam nañ ne nañ ko def am nañ ko doxale léegi lu fa ak gannaaw buñ ñoom ñu filee la at di sport lañ ko reject nga gis tension bi nu mu demee est que da nga jàppoon loolu mënoon naa ñàkk ak tamit euh, réaction bi nga xamante ne wala mbir mi nu mu demee Eh, ban jangan nga ci am parce que tamit gis-gis yi wutee nañ ñu bari ñu ngi ala wax tamit police bi ñum taxawé xëj na na ñom mëna taxawé leneen waye tamit ñu ngi ñu ngi wone tamit ñom tamit ñu doon defal sen bop parce que euh, supporters tamit ñu ñu réacté buñ defuto non amana mbir mi waroon na mëna graw parce que waaw wa bala loolu mhm. dinañ si ñëw parce que rafet ko te askan ñu bari rafet dinañ ñëw dem ci mbir sa comme ni ko maam waxé ndaw lu am yaakar la absolument xam-xam mu ngi ci mom war na war na naa war a mën a bokk si réew mi. Mhm. fu ñu nasee ak fu ñu noccee. parce que xelam may na ko am na xam-xam ndaw la bokk si ndaw yi njëkk jàng si University of the Gambia. Mhm. definitely position bu mu nekk. Mhm. ñu bari yéene wuñ ko ko parce waroon réew mi waroon naa jëriñoo xam-xamam. te nag ñu mel ni moom dafa bari sax dafa bari ñoo xam ne nii nguuri jaame ñi jaame moo nu menoon. dafa yuus ñu bari waaye tey ñooñu tam. ñu xam ne jàmme yuus na leen ñi def naka sudu noonu si dëkk bi te ñi ngay liggéey si nguur bari na loolu tamit argument la loolu tamit ñu wax ne loolu bari na fi am na ñu ñu mention te dafa mel ni ñi ngay liggéey si gars yi dañu am ñu nga xamante dañ leen seppi si affaire yi absolument moo am waaw te ñooñu sax ay mag la ñooñu waaw sa saabali talent la ndaw la doomu réew bu am xereñ dañ ko waroon a gis mu xam-xamam mu jëfandikoo ko si biir réew mi nguur gu fi nekkoon mun ngaa wax ne ku si nek rek baran joxagn nga don topa loolu nga def mhm. tay moo tax tey ñu bari tay nekkon fa tay ñi gis leen ñi ci goor baro di liggey bari na directeur SAS ko dem na NIA tudd nañ ko ci lu nekk tay mu ngi nekk directeur SAS ah, euh, ok ak ñeneen ak ñeneen so so yooyu bu ko nguur ku fi nekkon mom nu bugewon nga don defé mhm. nit ñi xam nañ nga amna What general mu fi won koku liñ ko tudd ci jaane commission tudd ko si Sabali? te ray ñëw na fi fi ñi téye ko fi ñaar ñett ñi amun loi mënu Pas téye parce que teguñ dara ci ndodam right na mu ngi kiram free so moo tax affaire yi dal people like Sabali. ñàkk sens bu mu sens luma gis na rek moy ne euh, bu dajee teeloon a dajee kilifa gu xam politique daf doon dem society government gos mu nekkoon society nguur Konon dram Sedna nguur gi nuñ ko baanee naka la ci la mën a. non na génn nguur moo ko baan nguur moo koy génne tey ñu wax ne amul teguñ dara si seen dodd tey li ñu ko tudd si jaane commission général Badji tudduñ ko fa tudduñ ko euh, kii. tudduñ ko tudduñ ko tudduñ ko saabale tey bu ñu ñëwee rek mile two right na mu ngi lekk benn ci nan ñu na amuñ dara luñ gàll si ndoddam bi kon jaane jaane commission lu ko doon tudd tudd du dëgg. lan la ba affaire amul kumba am dee kumba am baay. Mm. wala am am ku bokk suma kaam ak ku bokk suma kaam saabali ñàkk sens boobu la am. lu mu dem ànd ak di main opposition te opposition bu mu àndal nii bi ñu ko baanee soo ma fi dem de dañ doon célébrer lu ñu ko baanoon jaana commission parce que ñoom ñoo ñoo set up jaana commission. time boobu ñoom ñoo ko set up. waaw am na sax ñuy jàngal loolu tamit ñu baan ko parce que ñoom seen boppa ñoom ñëpp a rafetlu woon loolu. tey na ñoo ne si seen kaam mu naxari leen ba tey ñu ñu baan ko si élection nga dem di sànni xeer warutoon a am. seconde li ASC lu ñu def waru ko woon a def lu xewoon biir mhm. ñooy responsabilité koo xam na ni mun ngaa war ba mu dem këram nga yónnee ko lettre nga ne ko bokkuloo dafa yomba. lu bokkuloo dafa yomba. ok léegi ko def at seen sport problème sorry problème di fa taaka. ñaareel bi mooy ne police yi. Mhm. ñu ngi leen di ñaan police yi amul kenn ku wàccee si asamaan si. ñoom ñëpp si kër lañ jógee. ay nit la suñ suñ rakk leen suñ brothers leen suñ uncle leen. ñi xam na réew mi ñëpp ñoo ko bokk seen doxalin bi tam dafa ñaaw daddee hmm. téye nit di ko dóor ku téye mbaam so absolutely lo dañ fa wane jeex na si time jeex fi oh, ok so waaye ñun ñu bëgg a indi système NIA si mbedd bi hmm. loolu ci NIA leen ko xamee woon loolu dañ ko war a loolu dafa pour move on Okay, ñang man tam feneen fi may waxee mooy ne ok euh, police brutality bi ñun ñëpp dañ ko condemn lu ñuy condemn la duñ ko rafetlu waaye tamit man gëm naa ne IEC bala nomination bi yow wax nga ko tagatu biñ doon wax dañ ne is an open secret ne any candidate bu munta jall on sports lañ lay wax ne dañ la reject loolu warutoon a indi problème no non dafa am lu nga xam ne ni doko def because da nga xol lu no, why no rule for one is rule for all what I'm saying no non non lu ma min moy ne mm-hmm. maam tay bir kaama lu feewon woon mm-hmm. foo ay bakkan roton mm-hmm. nga demone bind ni ki leetar ak lolu lu gën dafa am lu nga xam bu naree jur musiba yow lu ko def te ding ko def waaye bul ko def time boobu noonu. waaw léegi li ma la loolu laa miin rek bu ko mun nañ koo defee inné ko defee woon noonu tamit beneen sew ko defee la mooy tey forty eight hours yi xam nga léegi Amad ña bu ñu rejecté dañ la am ko war a wax ba pare ñu jox la chance ne may nañ la forty eight hours and saabal loolu lañ ko wax moo tax mu amaat opportunité pour demaat appel léegi nag suñ ko ko waxutoon ñu bàyyi ko ba mu egg këram ko ñu intoon ne ko la 48 hours wax nañ la e ne presidential election loolu moo leen dal loolu gis gis la daal waaw man su gis-gis mooy ne waaw amul problème anything kan uh, ku nekk a defee mm-hmm. because da ngaa xool sécurité bi tam because dara mënoon a faayew lu nga xam ne sax mun naa stop election bi mm-hmm. so why when you come to security that's I mean da nga waroon xaar ba nit ki dem dan nga sang ko ëllëg nga disqualifié ko. waaw li nga wax ko right now ni am na ñu nga xam ne mais bi duñ jàll. Mm. su ñoom am nañ two days càmbar. Mm. càmbar bu mun nañ càmbar gis ku manqué leen dara lu ko teree mun a dem. dina ko doo dem. waaye xam nga ku ñëw on sport ah. anything lu nga xam ne yow moo la teree pour nga jàll dañ la koy wax. ci tanga tanga bi yow budé da ngay dem nga deferu nga wat nga dellu si comme saabale li ko dal ni fim ko dalé foofu la ko ay si mun a waxee ne lii sa gàllankoor légui nak bu fa joggé lenn mom lay nangu comme ci li nga wax mooy ne sécurité bi nañ xamné ñom ak man ak yow ak ki top Mamadou Sabali ak ki top Adama Baro ño em ci ñom all right thank you lolu amna solo xam na né naa né lolu lolu ne loolu loolu ñëwaat ci next time but just ñu continuer Euh, wax ci leneen kon ni ma ko waxee woon ci euh, ndorte bi ñu àddu ci li nga xamante ne mooy nguuri Gambie dañ génnee bataaxal di addu euh, ci li nga xamante ne mooy xew-xew bu amoon ci fan ah, ci weekend bi Euh, foofu ci euh, Casamance waaye dafa jege boora Gambia bi lool surtout foo ñi bi tax euh, am ñu bari ñi nga xamante ne ragal nañ ba ñu daw wala muuf ñu mu nekk li nga xamante ne mooy li liñ lu lu lu lu ragal su ko defee ñu indil leen li nga xamante ne mooy statement bi bala ñu continue now let's let's move on and and and bring you the statement from the Gambia government with regards to the recent uh, military operation of the Senegalese against the MFDV, uh, MFDC, I should say, in Casamas, resulting to some tension around the uh, Foni uh, uh, end. Now, it has come to the awareness of the uh, Gambia government that Senegal launched a military against MFDC separatists in its southern region of Casamas on Sunday, 13th of March 2022. Now, given its proximity to the Gambia, several communities and villages, particularly in Foni Bandali, Fonyi Kansala and Fonyi Bintan Karanai districts have been affected by sounds of heavy gunfire amid reports of sounds landing in these Gambian border villages. Now, the Gambia government can confirm that it is, uh, as of last night, several internally displaced persons and refugees from the border areas began arriving and are being registered in the villages of Fonyi Bintang, Fonyi Kansala, and Fonyi Bintang Kananai. Now, in the wake of this military operation and its attendant refugee situation, His Excellency President Adam Barrow directed that the Vice President, working with the relevant ministries, uh, government departments and agencies, urgently respond to the pressing needs of the IDPs, that is, of course, the internally displaced persons and refugees. Equally, President Barrow has directed for the exercise of more vigilance, robust border patrols, and intensified security activities on the Gambia border for the safety of citizens as well as safeguarding the territorial integrity of the country against any potential foreign threat. Now, President Barro also wishes to reassure citizens members of the diplomatic and consular corps that the Gambia will neither be used as a launching pad nor allowed anyone to enter the country with arms and ammunition. Now, the Gambia continues its peaceful advocacy for a resolution of the Casamas conflict and envisages lasting peace, security and stability in our region. Meanwhile, the Gambia government strongly urges citizens to desist from spreading false news and recycling of videos, all videos rather, and audios of similar past events to create confusion and fear in the minds of innocent, peace-loving citizens affected by this conflict. And that is the statement from the Office of the Government Spokesperson, Ibrahim G. Uh, Sankare. And um, um, this is the uh, statement uh, following the recent uh, uh, development uh, that happened. So in relation to this, so we would want to speak to, um, um of course, Al Almami Jiba, who is from Fonyi, a counselor, so he can bring us up to speed as to um, what is the situation like? Mr. Jiba, good morning, and thank you so very much for uh, joining us. Uh, you just had us read, um, read, the statement from the government uh, there. Now, tell us, as we speak, what, what is the situation like in Fonyi following this uh, recent uh, conflict between the Senegalese army and, of course, that is that of the and of course the between them and the MFDC separatists. Uh, what is the situation as we speak? Uh, thank you very much. Uh, I have the TV uh, and it's laudable. Mm-hmm. as as we speak, I'm just uh, from at uh, one hour ago from Tony. Okay. Uh, I could also give you a full update of yesterday mm-hmm. and uh-huh. today. Yeah. as it happens, yesterday I was in Kanilai. Okay. I can vividly put it to you that mm-hmm. I was present when the cells that were fired from the Senegalese side to the Gambian region uh-huh. I could even tell you in my presence, I have seen three that have landed in, in Kanilai near the former president's, uh, former, former President James uh, uh, garden. Uh, uh-huh. and there are others that have also jumped towards uh, Bujiling. Then in the side of Bujinga, uh-huh. a wildfire was also eroded, irrespective of this fire that had happened. You know, as we speak, uh, the villages in the border are all evacuated. Balen, Puntang, you know, talking of Monum, you know, it goes to Kaling, Jikin, you know, and also not only in Kansala, but the mm. life of Bintang and Bondali also is affected. Yeah. So most of the people have also a sick sentence within the other areas of the village. Uh-huh. So uh, the situation as at now, uh, since yesterday, a fight continues around 9 to 10 o'clock. Uh-huh. You know, but later it has calmed down, but as we speak, Eh, you know, from the uh, from the night down to the early hours of the morning. Uh-huh. We saw a, a, a, helicopter moving from the Senegalese soil okay. down to the Gambian territory. But the people of the Funis are living in fear. So as at now, the situation is calm, uh-huh. but people are moving around and evacuating their young ones, old and young. As of yesterday, around 4 o'clock, uh-huh. I have also participated, a lot of people participated, donkeys, horse carts, uh, tractors were used to evacuate people. I could even tell you, as per yesterday's assessment, about a thousand people, young and old, are displaced currently as we speak in Sulu. Oh, oh all right, uh, and, and, uh, and of course that is uh, of course we had the, the statement that I've just read. Uh, the president have um, given a directive, and of course that. Um, you know, uh, the uh, vice president uh, to work with relevant uh, ministries and government agencies to respond to uh, the people that are affected. As we speak, what is what is the uh, need of, um, of course, the need of um, response from the authorities with regards to the people that have been displaced um, following this recent development? What, what, what kind of support are they receiving, if any, at, at the moment? As we speak, as of yesterday, I am I can vividly tell you, uh-huh. it was terrifying and a shocking moment that the people of Konya have seen that they are fully neglected. Young ones were unable to eat. Some of them ran out of hunger. If you see, you will even think that the war is a Gambian war. The war is in the side of the Gambia. As of this morning, and as I'm speaking to you, I've not seen any authority, neither a help uh-huh. to the people of Konya. Maybe you know, in in in, in the other as you know, eh, the help could be rendered. You know, we could also tell you eh, that the pragmatism that this government took in foreigners, they are not really taking on to the Gambian people. We could, I could take an example. The Senegal incident that had a clash between the Senegalese and over the Gambia, the government wholeheartedly supported millions of dollars. Food items were distributed. But the last fracas that happened, we've not seen the help from the government. So I believe so. It is also timely. And I could also congratulate them for coming up with a befitting statement a day or two when the incident happened. So we've not seen any help as of now. Maybe in future they will work on, but I'm telling you, the funny people are daily in need of help. Young, old, you know, pregnant women, disabled people are all displaced. They left their family. Mr. Yes, Mr. war. Mr. Jiba. Yeah, Mr. Jiba, the, pres the president. Our all... have been affected by these cells that are dropping in the country. If you go around the Bujilings end, the, the Kanela end, the Bujinga end, and also the Karod end, we've seen a wildlife of fire in response of this lightning or the cell that have dropped in our own country. So I believe also yesterday the Gambia Armed Forces, mm. led by Lieutenant Colonel Umar Boyan, yeah. they've also taken the side of the borders. Okay, I, sure I, I, was going to ask about that. Mm. That they are there for us. Yeah, that's. I was going to ask whether the uh, Gambian Army or Security Service have has has. I mean, of course, um, you know, started patrolling the area because the president have also directed for the exercise of more vigilant and, of course, robust patrols uh, to intensify security um, activities of the Gambian border. I was going to ask whether you have seen um, the Gambian, maybe army, in, in, in, in that area patrolling or trying to safeguard the people that are, that are residing in that area of the country. Yeah, actually, as of yesterday around uh, 5 o'clock, mm -hmm. we were just heading to the camp commander in Kanila Barracks. You know, the compound of the former president is now being ruined as a barracks. Uh-huh. You know, as we were approaching to the door of the barracks, spoke with the military police to see how we can talk to the commander and now put it to him that we are terrified. Uh-huh. We are affected. Our people are running. And we haven't seen any means that we think that, you know, it could be something that we uh, uh, uh, be protected. Okay. So as we went closer to the, the, the camp, uh-huh. a cell broke out from the Senegalese side. So we all have to lie down, with, including the military. Uh-huh. So we couldn't see the camp commander. But we also made to understand that very day, as of yesterday, the Lieutenant Colonel Omar Bojan and his team were also at Balen and the other satellite area within the border okay. to make sure they refrain. But the news that we get uh-huh. is he has also sent a signal to the government that this is unacceptable. And we believe that the government should be very pragmatic to make sure this shooting towards our soil has to stop. Bushfire fire is intensifying and it's increasing in daily lay every day that we have seen. So our cows will be affected. Oh. People are terrified. And the cells that will now land in the Gambia okay. are making people afraid and they're displaced. All right. They're looking for shelter. So okay, at least the government should now mm make it as a, as a point of duty. Okay. So make sure they send delegates, inform the Senegalese forces, let them stop the shooting to make sure our people are safe. Okay, we now, are terrified now. and we are affected, and we think the government should be fully prepared to come to our aid. Food is a problem, shelter is a problem. People are living in fear as we speak in Fonyi Kampala, Fonyi Bondali, and Fonyi Jaron. Okay. Uh, before we before we, we briefly um, you know summarize these things in the local language, I would want to to ask you uh, this one, of course, uh, because there have been uh, different reactions, especially on the social media, and you have had the uh, statement also urging uh, citizens to desist from spreading false news and all that. Now, can you confirm to us that, of course, this is this has not to do with the Senegalese contingent that are in the Gambia for it, like it happened the other time. These are the, the, the conflict between the Senegalese soldiers that are in Senegal and that of the MFD separatists. And then again, are the Senegalese forces that were stationed in Fonyi, are they, are they still there or have they moved? I want you to confirm uh, this to us. I could put it to you. Mm -hmm. uh, it is factual and it's good for us to be very realistic in spreading information. Yes. This war has nothing to do with the Senegalese who are stationed in the Gambia. Good. It is a war mm -hmm. in Senegal and the Casamance region. Very good. Bullets are fired and they land in the Gambia. Mm -hmm. As we were moving from uh, Johnson down to Kanilai, yeah. we saw the Senegalese forces who are occupying the Gambian territory. That's uh-huh. mm -hmm. the so-called economy. You know, they are in high gear. I have not seen any move, okay. neither taking a space okay. or preparing. But all these tanks that are fired are from the Senegalese area, okay. not in the Gambia. We've not seen them moving towards the border, but all firing is done from the Senegalese side to the Gambian uh, uh, uh, countries or villages. So, as I'm putting it to you, I can vividly tell you it has nothing to do now, as I use, that I have not seen any involvement of the economic Senegalese force in the Gambia. And as I'm putting it to you, uh-huh. they are still available. They are still doing their thing. There is no changes or improvement uh-huh. that we've seen that Foyi could breathe an air of peace, an air of freedom, an air of making sure that they are citizens to live and move freely in the Foyi. All right. All right. Now, now, just a quick one. We summarize this in local I, I don't know how good your Wolof is, but <laughs> my Mandinka I know is, is very bad though. But just to, to tell us, I will tell the, of course the the listeners and the viewers as to Uh, what happened yesterday um, di di tension su ko defee rek ku ñoo uh, waxtaanee uh, right now mooy ki nga xamante ne mooy Almami Jiiba moom waa Fooñi la te tamit dafa am taxaw na sax ci jongante élection parlementaire bi ni pour indépendant pour Fooñi la waaye foofu la nekk démb ba xew-xew bi dégg ngeen coow li bari na lool wax yi bari na moo tax ñu woo ko pour mu indi wax ñu dégg lan moo xew Mr Mr Jiiba naa la bàyyi rek nga nga wax. ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan mbir mi naka la demee démb euh, ak tamit situation bi right now ndaye fii kaam na ak ñi nga xamante ne euh, xëj na tiitoon nañ ba ñu jóg fu ñu jógee ñu nekkoon wala ñu dëkk di ut feneen fuñ dem ñi nga xamante ne ñu ngi Casamance ak si biir foo fooñi tamit euh, nga summarise ko bu dee si kàllaama mandinka wala wolof boo boo dem rek baax na amul benn problème ok a baraka bake a baraka bake aya fukati mbal konte na mbal jayla ah, ngambe mfaali wala ko ah, ah. kelo nyi a commencé da kunun ne kelo nyi kabira commencé da a keta jikilate baati ani silango mool me yalan koy ɓe bota mel ɓe yalan koy kata foñima fanna e eh, kana di studio of di soma basse highway yeah. men be keri no wala tol kuno wiwe en kanila nda a kanila uh-huh. kabiri nga kalo ni moy dada ka studio solo jube because mo mo la nyantole melo nga bota suñu uh-huh. ndol be kol ya ku kol ya ku mam mo mo bile mam tan tan bile na manke the government uh-huh. because munatina senegal solbe gambel and wa kola ko nan kelo ni amanke bila commencé ta men kete no wala kuno fayro kete non ka bonan ka sama senegal ma fanno kana gambel ndol na seeƴaale ko kesol men tata kese luulu wala ɗum da kanen lay saate kono former président yahya jamela gadin oto hmm. dool jompota kata bujil mafana bujingañol mafana kata oɗa area ji tindi gambian territory kabiri nga oje nto silata anno mool jamaɓe bori kan mayanan koye kata village to ko ɓayla saate kono siko a bataɗa men ɓe keere ñin kelo ñin sido ona fayta ibukalon aka jumala taget aɓe ɓoyla min toole so o silaŋo kamma mo jama le buta ila korda to ila sadel to kata sadel do do men ko be wada village sol to nse man haymano kunun la assessment asitano fo mo wili killing hmm. melon ko ila dulal bula dinnuwol mo sukonomal ino paabil men ko tamomo probléme nati ini hawjole barita konko fanan le bije men koye man domoroke wato mena keloñin keta uh-huh. so nse men kono wolen ko nga man sa ku nala statement o moy bara men non ko atana nan statement da mati biko man sa ku nda fonni la ko statement o ko fo demaro bu kana ni a jube problème o men kena sañanti mo min na senegal to na nin gam mino le problème so do bili ko di jama ani mano ani suko ani duwol men ko duni non le karole men ko demaro le yo le dema bara ndol fonni mawje mawje nyala andu demaro la karole men ko bana man sa ku nda bu ko to le mol sombe men fola wolen sain sainti mbe lafiri mansa kunnaka bulodi ñin foto demaro si futo a anum fana ye diyam sénégalais autorité mealon kay ɓe kelol la ye keloñin stop isie maintain kayro nin tenkongo men noon gambia ɓiɗin sénégal an gambia koye continue bara asat na gomen foye wolen fo ino kabiri sensol ñin boyta gambia ɓanko kan to lawulo na foro sol ɓe jani kan nan nin sol pour iɓele ñamo men domola a be kɛra problème ye ka taa bujiŋa ma fana ka taa karor ma fana bujilin ñol ka taa kanin laye ñin bee du dulaa du meeŋ ko bimmaaɓe mala kan because muna atin na ñin keloo ñin salsal men jolonta gambee banko kan wala ñin kol ñin tanka saabu bari me min fola wolon ko mansa sa saalon ko ndol fanan na ñanto pour ndol kanda ndol fanan na ñanto pour nga na freedom o soto joni fotanno ñanto pour skile o même ɓe keerin foñini casamance photo mm. ay ɓon doldaram ma solo fen fende namanke manque pour nala démarode ok bare si même fono fanan yes a sotode fanan gamben sojarol fanan wulita ok leadership le fanan konel oumar bojang mom mi nay kuwol ñin keta e ɓe ɗum kan koñi satel to men ko ɓodema fanna sori a soodi people ko wiya deya andum fanan ɓe keerin ngalam ɓe ɓe kalam kadi ndol fanan sa jekko ñimmumbaaɗe walla ñimmuganno soño min ko ɗeɗo fota labta kollo koñila ñim bata kono bara min sakkunnala karawla probléme mbaale ɓe keyde meelon ko negle e ka ñina koñila demaro ɓe kana koñila diyamola ka siya mallaki diyamola kanto lappa demarola alright koñi fana yaje fay mr jiba mr jiba uh, barka baki just just on a final note in in 30 seconds before yetta Uh, I just want to ask because you know you, you have declared your intentions to run for the parliamentary elections in the in the April elections, and you know speaking earlier on, you just said that I mean force I mean Fonyi Kansala or Fonyi has been misrepresented in many for many years, and then you know you said that I mean the previous representatives of Fonyi um, have failed in their duties now here now you have the intention and of course we have seen the, the, the reactions that you have made and uh, you know regard, with regards to you know districts and development and what do you intend to do for instance if you are given the, the, the, uh, the chance to represent uh, the people of Fonyi, Purka Development Natiji and also to engage the government to support the people of Fonyi like you said you lacked, I mean, support, and the government have, have not been, uh, has not been, of course, supporting you and all that. Just, just in 30 seconds, I will allow you to respond this. Summarize, please. I know we'll get, we'll get to in another time, so we can discuss extensively in this and other issues as well. Uh, uh, ah andun dula mbaalen ko ni diyam dem man sakunda fanan ngalen ko mole be diyam kan hmm. ni ay hakilo murundi na nomination luo uh-huh. i was speaking on emotion walem kamba da anit balafa meren ko ne mole ben ko face kan less than one week the same problem na because bi ñin ne moldi meren ko ko lekko sawda bi barwa kay tan ko itol bidani mbaro ke tilindi one so jarale two problem men be kede meren ko ñi e ko bank but bara sañ every in ñin problème ko increase le sañ idela ñanto ila ta munugo ni baroy ka fuñola ay muna wulu na man ko bata min kolya anin jihado melon ko poñin kolbe men pesgal so ñin nan kudi men ko ni ala ya hadi ya ñin tirawla number 1 first priority bita to engage the government and the authorities senegal sey boñin lanto second i'll make sure ko the Gambian will not be a landing point of self from Senegal internationally. Okay. They long call. elakelo fo foti ye this liberation force of kasa eno bisi le kelo la ndon nene manyi sifa moy nene manyi sifa je so all plans melo ko de teri ndon lafta ka men ko men sakunda wala ko ten ko nin kairo be lafri wala fitinyo abuka fendara na man kitinyaroti okay gambe ni senegal bakilin fakilin mm-hmm. man sakunda wuli ni la dala siti ye tae diabu makisale alonko fitinyo abuka kayro fitnomu kennede men ko nammalata ka faamu probléme o nodde ba mbi a more than one thousand people dinniwolle sukeɓaalu ani muso men ko konoɓe la ila domoromo probléme ya sidilamu probléme la laaluɗoamu probléme o la so muna o cause stability instability melo de ɓe sénégal le so was ila mission pour que mfdc adat wala ñing kol sa balinde de nga tawota annumede ga ta imma parlement na parlement nde amen activiste mbeɗa keloke foñiye ko freedom men will remain in the soonest possible of time. All right. Now, in, in, in relation to the election, do you think this, I mean, this recent development would have any impact in the upcoming elections, you think? Yeah, if it continues like that, it's going to be catastrophic. Because I'm telling you, villages in border, mm. the lack of care, you know, Kaling, because Balen, you know, all Chungtang, are all evacuated. Okay. So if it continues like that, it is definitely going to affect the election and the electoral process in Fonyi and the entire region of Foni. So therefore, I am saying to the government, let them raise a flag. Talk to the authorities in Senegal to make sure they stop this dubious sales alarm in our country. They can continue their fight. They can continue their scouting for the MFDC. But we are now saying that enough is enough to make sure that the cells are now landing in the Gambian territory and our forest cover is affected. All right. We also put it to the Minister of uh, uh, Forestry uh-huh. to make action, collaboration with the authorities to see what is happening. Our bushfire is now burning to ashes. Thank you. Due to this irresponsible act all right. Of the Senegalese forces towards okay. our country. Thank you. Uh, Almami Jiba, he's a native of Fonyi, but equally is one of the independent candidates that is uh, vying for the uh, um, Fonyi, uh, of course, of course um, I mean, parliament election, but for the Fonyi Council, uh, constituency. Thank you very much, Mr. Jiba, and it was pleasure having you on the line and for the insight and updating us on the situation. Thank you Thank so you. very much. Thank you. Euh, su ko defee euh, dégg ngeen euh, Mr Djiba leeral yu mu indi ci li xew foo ñi xam nga mbir mi bu mu xewee depuis démba ba léegi man sax am na ñu ma kool di ma laaj ci naka la ak yu mel noonu may leen jotuma ci xam lu lu bari so waaye xam naa fii ba tey xam naa amoon naa ne lu bari dina ci feeñ so mbir mi first li ma bëgg a ñu gën a leeral comme moom it déggal na ko sax xeex bi nekku diggante ñu nekk ci Gambie ak Sénégal Sénégal seen soldats yi ak euh, MFDC yi ñoom ñoo jaxasoo waaye nag ci jaxasoo boobu euh, euh, am na yenn bal yi nga xamante ne comme moom ni mu ko waxee dugg si na Gambia Kanilaay ak benn dëkk bu mu wax mbir mi dafa mel ni bu yàggul ñu ngi ci doon wax. Mm. ñu ñu bari ñu doon sàkku tamit nañ ci jàmm a fexe nii na nu moo nu moo stoppé soo dat Gambie du ci loru wala surtout ñu dekkee waa foo ñi ndax saa yu yënga yëngu amee ñoom dañooy tiit te tamit lu bari jafe-jafe daf cee am. la nga eh, déggee kàddu yi mu wax ak mbir mi amaana am na tamit loo ci jàpp eh, ci xew-xew bi nga amante ne amaana eh, xew na démb foofu ci Casamance. jàngat yi bëri amul am nañ ko si waaye force à force mooy ne rek. ñu ñu ngi mastaw people of foo ñi. Mhm. because wax dëgg yàlla seen 2022 bi métti na trop. parce gis ngeen li fi amoon na lee. waaw si doxoon si diggante soldaar yi fa nekk ak. Euh, rebelles yi ni si mhm. euh, soo newoon gàddaay seen kër yi soo dem ba toogaat bii tamit amati bii tamit amati mhm. bii nag leer na government bi leeral nañ ko waa mhm. Foñi seen bopp leeral nañ ko ne Sénégal comme nu mu demee nu mu baaxoon da am loolu moo am seen nit ñi ñoo nekk fële di xee ak soldat Sénégal yi nekk biir Casamance ak rebelle yi ñoo nekk di xee waa xam nga booda always bu xeex amee rek bu puusu amee rek nga dugg si suufi jàmbur soo loolu te bal na ko fi fii loolu moom na naqari am <laughs> boo teuf bal nga ne doo mo yemal fi foofu nga ko yem fu muy dal yow doo xam surtout ci bagage yi xere ñi am si jamono legi nga xamna mu neen daw thousands of meters pour nga ne ko bul dugg si boode jàmbur dafaa jafeñ so lolou nekk li ci dess da moy foog ñu ñaan rek yalla def si jàmm Secondly, li Gambie mun na sey dox as government wa statement bi mom statement waaw loolu président bi mom lolou la wax mom loolu seen bu ko yag na am mhm. bu ko Gambie yag na taxaw ci diggante eh, rabeli rabeli ak Sénégalese mmh. government pour ñu def waxtaan bu nga amoon na bu nga xam ne binjoona loon tay mi yaa jaame mmh. ñoom Edouard Senghate ñoo représenté Gambia mmh. pour mun na continuer loolu te Gambia daf ko war a def because of comme que amul doole stop ñële waaye am na right pour mun a wax ak Macky Sall ñi gars yi ñoom ñëpp ñu nekk si àll bi dajee ñu waxtaan because ñooñu su fekkee ne xeex mu ngi continuer thousands of Gambians duñu am jàmm raw comme mooy fooñi si te loolu dafa nguur gi def si am responsabilité bu mhm. nguur gi dafa war a gis ni ñooñu tam dina am jàmm te li nga xam ne daf leen war a xëy jàmm nguur gi dafa war a taxaw si loolu pour gis ne loolu dafa war a stop du doole waaye mun na ko waxee ak xel Macky mun na kool Macky ñu jéem a waxtaan ñu stop xeex bi foofu noonu bu ko xeex bi su amee foofu Gambien si ñoo si gën a sonn bu ko ñu nekk si biir àll bi already ñoo ñu ngi fa waaye foog ñu daw dugg si Gambia te da ngaa gis ne suñ dugg si nag du ma mën a nekk si dëkk bu nga xam ne ni just ay mitas moo tax may gis fetal fële damaa daw dama dama faa jógee mhm. te loolu fu mu nekk nii amoon na just two less than one month or one and a half months soo ñu gisaa result li mu ngi am nekk na lu nga xam ne lii yëpp waxtaan moo ko mën a liggéey te ñu nekk seen biir réew mm-hmm. war a war a deserve protection war a comme euh, ku nekkee ci beneen boor ci dëkk bi nu ñu mm-hmm. amee jàmm ñu ñu ñu ñu dal mm-hmm. euh, ñoom tamit noonu lañ war a noonu lañ leen war a aaree ñu nekk ci ci ci ci ci ci condition yooyu noonu euh, la yoon yi ñaari yi am ni mun leen wax ne depuis ba léegi dina doon am besom reedal livas euh, lire sax daw dugg Bissau Gambia waaye nu méttee ñaari yii nii mhm. kii wax na ko si biir wax sax forty years ñaari problème yi am fi Gambia people of fooñu niñ si sonnee mhm. mu ne woon during forty years xeex bi yëpp ñaari leen gën a sonne amul ñun gën a sonnee si yéen ko mhm. den daan xëy nga dégg rajo bi ne dem ba rebali attaque ne nangam ba doo dégg benn dëkki fooñu bu muuf ba right now nag dëgg-dëgg ñaar yi ñu ngi si sonné depuis étude ba léegi sonné wu ko si. waaw nañ leen jàpp ne nguur gi moom ñoom si ni mu ko waxee dañ leen xala maaji la naaj mooy dañ leen xëy na fàtte ci yenn euh, doxalin bi parce que wax sax ci yëfi ndimbal ñoom duñ ko am nu ñu ko war a amee euh, ci nu ci nu mu ko waxee soo ñoom dafa mel ñu ngee joytu ne te tamit ñu ngee ñaax nguur gi pour ñu gën a taxaw euh, gis ne ñoom tamit ñu dekk nañ ci jàmm koom ñëpp ñu fexe ñu aar leen dimbale leen seen nekk ak seen waaw seen ak fu ñu nekk waaw si territoire yi Gambie la Gambie suufi Gambie la loolu moom loolu Gambie moo tax tey mu naa lefte na Omar Bojang mu ngi fa waaw gars loolu dina dafa dina fa dekk waaye lefte Omar Bojang raaw fa du tax village bu dend ak foofu nit yi toog fa because tooguñ fa permanent dañoo raawoon dem. Uh-huh. li si des mooy waxtaan moo si gën a am solo. Ah. second li moom sa mention na ko lu xew Gambia rek day yéex a génne statement daf day xaar ba. daanaka comme ni ñu ko wax wàllu mbottu balaa moo tàng boobu danaa ñëw waaw this time waaw ci tàngata bi ci tàngatanga bi gis nañ gars yi react ak luñ ci wax loolu bëgg naa ñëw ñu ñu wax ci loolu mm-hmm. euh, bëgg naa tamit ñu ubbi line si at the same time ngeen déclin line si open 2323213 ku bëgg a ko rek euh, bu joxee euh, gis-gisam ci ci mbir mi loolu dana am solo ñu seet lan lañ ci mën a def ba jàmm mën a dellusiwaat ci ci ci région boobu maam ji bi gis nga mbir mi ak dégg nga kàddu yu Mr Djiba wax ak lu ci nguur gi wax euh, ci xew-xew bi ñu mu nekk li nga xamante ne euh, ñu bari euh, ñaawlu lañ ko daal waaye ñu ngi asoo ne nañ fexe lépp li nga xamante ne li am ñu fexe bi jàmm ji mun a dellusiwaat te tamit président bi ñaax na vice président bi mu ànd ak relevant authority pour ñu fexe ñi nga xamante ne dañ daw ñu fexe ñu jàmb dimbale leen ci nu mu gën a gaawee taxaw leen daal ñu gis ne jafe-jafe yi du du yaatu. jërëjëf Amadou hmm. dégg nañu kàddu yi Mr Djiba wax mu nekk lu nga xam ne man mi démb laa jot information bi hmm. around five o'clock yooyu noonu mooy hmm. time bu incident bi di am noonu laa dégg xibaar bi waaye mu nekk lu nga xam ne euh, du njël benn yoon ñu dégg woy fipp yi ak takkadari Sénégal yi ñu jote waaye nag li ñu ci concern ñin ak Gambians mooy comme ni waxee ak ni ko Mr waxee tey boo xoolee ak yi weesu yëpp

coming back to that bi passé recently gis nañ ne dëgg ñoom neen seen biir la woon waaye dafa am lu ko sababoon mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ay takk deri Sénégal nekk ci biir Gambie rebelle yi gis ne ñoom de loolu gën a leen ci mu wara am digënté Sénégal ak ñi nga xamné ñom ñoo nek rebelle yi uh-huh. di joté Sénégal security bi di use li nga xamné mom mo nek Sénégal Gambia as a traitor wa pour dugg wa ñu ñu ñu jël Paul Korea mu ngi ci mu ngi ci laan bi hello asalaamaaleykum salaam waaw hey, eh, how are you my good brother fine thank you sir um, I, I was actually wondering yesterday mm -hmm. démb moom man eh, munuma nelaw Okay. um, Ghana, Ghana, it was day before yesterday, Many yeah. Goodila was. Yes. This was about 125. Sila am uh, a call mm-hmm. regarding this very same problem. Okay. Why man demo for me? Mm-hmm. Ñun ñep Gambians lañ. Yeah. And then then you are am ité mhm si peace mm-hmm. and security of our nation. Indeed. Because man dama feel ne development do muna am on est noonu ñu am peace. yeah absolutely. and pour am peace foog ñu am security. Uh-huh. te xam naa ne ñun ñëpp ñoo hôtel euh, Adama Barrow. yeah pour mu protect mu provide security. Uh-huh. mu provide development for the people of the Gambia. Uh-huh. waaye di nga gis ne ñu yàgg nañ di wax affaire yi wax bii de but di nga gis euh, euh, people coming out ñu leen a call di wax ne nañ stop. be spread, uh, spread to mm. social media. Yeah. Let them not be dismissive. All right? mm-hmm. We should actually confront this matter head on. Okay. Madama mm-hmm. the government of Adama Barrow, yeah. they then complot with the Senegalese government. All right? Mm-hmm. It is a threat to Gambian people. Okay. I think it is no more talk. Mm-hmm. Man, I have actually proposed to a group of people yesterday. ma all those people ñi nga xam ne dañ nekk asp eh, asp aspirants ci mobilise we will march to the state house and tell Adama Barrow to address the Gambian people regarding this matter. The the Minister of Interior, the Minister of Defense, mm -hmm. they have not made a statement regarding the previous incident that, that happened. Mm. When, when are they going to approach this with tact? When are they going to vigilantly make sure that Gambia, Foni, because I could, I could always come back, it, it comes back to my senses. The, the, the time of Jata, Jata being Raya Jata. This mm. eh? is here, Okay. Okay. All Nothing right. is come out of it. Okay. So thank you. What does Adama Barrow, mm -hmm. huh? Mm -hmm. you, what do you want for the Gambia? Okay. Canada, he is continually, man, man, Lima Gisney is a manifestation of his intent and raising of the, the, the, sovereignty of this country. Okay, all right, thank you. Thank you, Mr. Mr. Korea. We appreciate your contribution. Uh, uh, gis gis la, aku ah, nekanga call, mom non la ko gise, and we appreciate that. Uh, thank you for your call. And I know, of course, what he have said, also the, uh, the authorities are listening and they need to consider that. But mam de nga mom tamit, fa feel na daal nguur gi, nu ñu war a taxawaay bi dafa des pour moom uh, Dem na ba gis ne sax, xëj na président bi wala nguur gi yëg na xam nañ li xew, amaana ñoom ñoo gën a des na mun a ko depuis xeeb bi euh, door moon ñan sax mu ngi ko wax euh, lu mel ni jafe-jafe yu ci am ci ñaari xew-xew yi ci waa Fooñi daanaka du doon am soo buy am nag ñu gis ne réaction bi xëj na buy am sax dafay suloo euh, donte ne sax this time président bi jox na ay directive nañ ci taxaw booda bi te nee na sax duñ seetaan kenn di jaaral ci suufi réew mi pour indi jafe-jafe ak yu mel noonu. waaw nga xam nga man comme li mu wax. Mr hmm. Korea Mr Korea. Hmm. foofu a press release bi man fullalu naa li tax fulalu ma ko mooy. Mhm. fi mu ko waree woon a defee. Mhm. defee wuñ ko fa mooy incident bi passé. ba nga xam ne biir réew mi. Mhm. la takk deri Sénégal yuus ba problème bi am ba ñëpp ne lii de warutoon bii Sénégal kese ñoo jotee. gaa doomi Gambiens muy doomi foo ñu nekk nañ ci victime kon bul toog be yow fi nga waroon a waxee waxee fa nga dem ba foo warutoon a waxee mu jot. Mhm. nga capitalize ci opportunité boobu ne damay rafetal li weesu woon ci ñaawteef bi nga xam ne ni ñaa ngi ma ci doon séentu tey ma koy jagar te dëgg la lii amutoon sax statement direct communication la waroon nekk moom ak président Macky Sall. Mhm. mu ne ko Sénégal ak Gambia benn la. Salif Sadio bi fitna bi amee wax na taarixu diggante Casamance ak Gambia. wax na diggante Sénégal ak Gambia. understand mhm. nga mhm. tey bu fekkee fitna bi amaan na diggante Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Casamance mu dem ba doomi Gambien si nekk ci victime ñoom bu ñu génnee def press release these are the expectations that we need from them waaye na nekk ci jamono bi nga xam ne moom lañ ko gën a soxlaa mooy incident bi weesu woon. Mhm. te du bii rek de wax na ko fi di likes of dat uh, dat dat jaata I think Yankuba naka la something jaata waaw moom mi nga xam ne moom lañ dóoroon bali fetal bi ci Kamfenda mhm. yooyu yëpp dafa fi am doom yi foo ñu génn di ko ñaawlu tey bu fekkente ne problème bi fële rek la amee comme ni ko ñang waxee mhm. pënd bi rek moo ñu ci laal de bii lii pënd bi kessé la mhm. ndax biir Sénégal lañ doon xéxé té comme lim wax la nit ku tiyé bali fétal fi nga taxaw nga xam way fu muy yegg do ko xam ndax da ngay door rek ngelaw moy dem wa xëy na xam nga yoy yëpp mo daf doon minuñ ko mhm. ndax du doon am mhm. bu amé nak ifin bal yooyu bu dee benn la sax euh, da fay créer tension so tension bobu na tax ñi nga xamante du seen xel du dal surtout bu amone bu yagul bi tamit bu amaté fokk nga gis réaction nit ñi dañoo téla daw té ñom tamit fofu lañ am ci yaakaar so mu ngi la wax né sax dem na bi mu né élection bi té mouvement bi tax na sax élection bi si foo ñuy ak yeneen région si wala. constitution waaw na ko indil gàkk gàkk ah. waaw xam nga li tax ma ne la. waaw gis naa press release bi nga xam ne moom la government bi def through the spokesperson. waaw waaye dama ne bi weesu woon ndax ñoom wax nañ ci man dégguma ko te yow bu bu amoon dinañ ko waxtaanee fii. understand nga because ñun ñëpp fii la ñu fekk. ok léegi nag leneen li am mooy nga baal ma jël Mamadou Ba tout. Euh, ku jë ku bëggoon taxaw ci présidential election bi. Hmm. nga ñu amoon Mamadou Ba one ak Mamadou Ba tout tout bi mu ngi ci line bi dafa bëgg contribute Mr Ba ñu ngi lay nuyu welcome to the program. naa ngeen naa ngeen jaama rek alhamdulilah. very good euh, maa ngi foro programme bi. thank you. yes ñu ngi lay déglu go ahead Mr Ba. waaw Malene, ah, programme program is important. Thank you. And also, you are able to get all the information that Gambia is part of the ECOMIS, uh, not part of this, so that was important. Yes. Mm-hmm. Ah, lu man lu ma bëgg a ñu taxaw léegi di ut dëkk bi di si pare ci ah ñu nga xam ne Gambia bu ñu si dugal politique. bi si seen li passé na politique li kenn waru waru si dugal politique. ok. Ah, lu ñu war a def rek xam naa ne nguur gi. Euh, ñu ngi liggéey si suuf te soobee yàlla euh, problème bi danaa ko danañ ko solve te soobee yàlla danañ ko solve permanently because last time mosoon naa wax ne the solution Gambia Casamance mooy def fence diggante Gambia Casamance. Mm-hmm. because mosoon naa wax loolu si suma nomination bi. comme mm-hmm. ma gis mooy Gambia Casamance Gambia am Casamance su ñu amee problème Gambia bi si mën a seet il ñu dugga si because lu xew bal bu nga xam ne lu saa waa ji lu mu wax soo fetelee bal doo mën a wax doo bon lu ma oo li nañ si polo di nga xam ne national issue okay. dinañ si taxaw as soon as possible te eh, dinañ si am solution benn benn laajte rek waaw ma bugal bugalaa laajte rek balaa nga dem comme wax nga ne xëj na ne eh, nguur gi yaa mu ngi see dox ndax xam nga ci dara luñ bugg def pour gis ne eh, yëf dal na te foog yow tamit nga nga dina ko ba nga maam ji bi direct question bi li nek moy yow réesoon nga ko sa besi nomination bi IEC nga ne buñ la joxe rew mi da ngay fens diggante Gambie ak Senegal mu kon wax bu bari, Senegalese media bi kap capté won nañ lolu tay ji gis nga ne yow la nga waxone fitna mu ngi jog dem nga and nga ak president Adama Barrow ndax waxtan ngeen yak mom pour nga indi safara yi taxone nga ne da ngay fens diggante Senegal ak Gambie. wa am nga Gambie bu mo allo. Uh, waaw lu lu ma doon wax. fence bu ma doon wax there it was not uh, at the initial stage I was not thinking of a physical fence. okay. I was just uh, thinking of putting the citizen in uh, this, uh, the community in Fonyi, put uh, train them now politics, uh, politics, uh, politics, uh, uh, politics, uh, community policy. Okay. Train them to a standard and also introduce them to a three-toll number. Mm -hmm so that any threat that they uh, observe in, in the border, they can report it to the police at the possible uh, soonest time. Okay, okay. So Manebon CCTV camera system that is ñu lay yóbbu yóbbu banta yu lay sàcc nag yi jumala yi nga xam ne dañ lay sàcc ci have a dara danañ the gis. Okay. But since you come here, sort of, you come with a permanent sign, you put a book on a you defer I put up. Kuna amne buka nga joge kasa manga duka nyu hane lamga lamga isale seke na ke buku lamone ka skin bus because it's important for our security. Okay. But then when I was talking about that, people think it's politics. This is our security because hamna ne bigger than Gambia mas rebels that are in the there. The only commercial business they are doing is to cultivate this marijuana and then you see ko sibe kambe nyu ko jaisi. and then at the end of the day ñu ko day jaay suñu people ñoo ko day jaay suñu suñu ko jaay ñu teel a yóbbu leen maaye tuur so I was as a presidential aspirant I mm. think the solution was to put a, a sense in that place so that i least the people of Foyi have security for that matter because the people of Foyi suñu amul jàmm tamit amul jàmm because they are part of the country. So to what because man am I don't know the technology. Your domestic policy policy may affect somebody in another country. So councilman's policy or centralist policy may affect in the future. So this is why I'm thinking of you put also you am on sense for you um, a permanent sense for nga the solution bi mu mëna nek eh, so bu nga permanent okay but as far as we xew na bi Let léegi lu let nobody put politics in this this is a dëkk problem, problème Gambia because Afara Bali is going to see what we can do. And I know President Barrow is on top of the issue, and I know there will be a, so, a, a solution on this, okay. and then it's going to be in the soonest possible time. All right, Mr. Ba, thank you very much for your contribution. We appreciate your, um, you know, call. Thank you. Wow. Mm -hmm. wax na lu mm-hmm. mention na si both side the people of Fonyi du government bu mhm. ko dañ leen óor ne on the nine bi ñu dégmal élection mu ngi fa am kon dafa nekk yoon pour government of Adama Barrow su élection amutoon sax dañ war a dox na gis ne foo ñi dafa war a am seen jàmm dana am seen àq ak si yelleef si réew mi mhm. si Gambie la bokk nekkul communauté bu beddeeku mhm. di laaj indépendance si Gambie leen bokk dajee booda nag ak dëkk bu nga xam ne Casamance ñoom ñu ngi am problème kon ñooñu dañ leen war a taxaw bu baax a baax dañ fa war a def sa ifin camp boo xam ne pour ñoom ñu mën a am seen sécurité not patrol nii comme ama boo jël nu ko defee dalal xel nit ñi

président bu nga xam ñaari nguur yi am nañ si relationship ba nga xam ki mu ngi la wax ne rek danaka dugg ba ci xaw a jegeen Kane something like that because this uh, Jiba bu ñoo jokk moom mu ngi ko bu si politique am. waaw te moom tamit nag ñenn moo place bi euh, te gis nañ fausse fausse incident bi ni ci amul ñaa si taxawoon. Ah, te yéen ñoo si nekkoon. exactement waaye loolu yëpp sax ñi ngi doon sóoraale mu ngi fa woon bokkuñ doon kaam. waaw exactement parce que xam nga ne kii am na lum si xelam lu mu nekk pour tey loolu leer na. waaye itam bu si politique rax si sayti ñoom ak nguur. nañ seet jàmmi askan bi mhm. te xam ne élection mu ngay ñëw xam nañ ne indépendant la taxaw te xam nañ sababu lu tax mu taxaw indépendant loolu tam bu ko kenn faytee pour mu leer ne seet interest of eh, foo ñi mhm. seen population mhm. ñu fexe ñu am jàmm bu élection bi jotee kuñ fa samp ku wiin ñu xam ne wiin nga waaye lu Mr Bawa is very important politique bi nag galgal bi mun naa jógee si any camp moo tax na ñoom ñëpp bëgg si kenn def neen gis ne jàmm moo fa am nañ gis ne jàmm dina fa sax ba bi bu jotee seen doomi foo ñi right bu ñu am

Ya, si loolu nag yéen a ngi ci jàmm ah. sant yàlla bu baax alhamdulilah. yéen a ngi defoo sant Sall yi. jërëjëf. yéen dinañ gërëm si moom ngeen sant si moom ngeen jàppale ñu waa Gambie yéen. réew mi ba ba ngi dang. réew mi ba ngi dang bi Gambie ak Casamance yëpp dem na. yaa. président Barrow dafa war a tax dara mu diggante Gambie ak moom war sago di yoni ko social media di site ko non wa di dem ar ko da ngay ne lu warta ne ga ñun ekonomi économie la ñu yaaxu rek boy nam ñu xalaat ma ko ko mo dañ ci bari ya la ñu eh man all thank thank you buba nam halat, thank thank you Jeff. Euh, ci euh, contribution bi euh, apprécié nañ ko la. comme lu ma la wax Amadou. problème bi bu mu amee ba bàyyi. Mhm. gis doomi Sénégal yi ñu ak Sadio ni ñu doon fëggee seen dana si forest bi. xam nga ne Sénégal nas neen pexe. pour after all this. dinañ attaqué gars yi. loolu moom loolu moom waaw réaction bi affaire yi daf leen naqari. daf leen parce que am na ñu bëri dañ ko ñaawlu mhm. si nii si nele. waaw parce que boppam bu génne na commune ak nu munti demee ak anyhow sa àll bant yi àll bi di dinañ ko aar si nii wala si nele soo réaction bii nii warul bett sa Gambia government. xam nga man li ma wax mooy. waaw waxoon naa ko ci mhm. warut tax ñu xaañ ma ci sometimes mu am non ba tamit est-ce que jàmbur la xam nga. waaw non xam nga li tax wala loolu mooy ne tey. Casamance ak Sénégal ñooy jotee. Gambia waaw nekk ci diggante bi. on saan nga waaw foo ñu gën cee nekk victime gis nga man lii bu amutoon dina ma bett xam nga lu tax ci ajjuma bi Ousmane Sonko daf doon def. Euh, daf doon def programme waaw ci ñetti télévision te adresse am yëpp Casamance la doon wax li fay am. niñ leen na marginalisé xam nga te ñooñu dañ nekk nit ñu nga xam ne tey fiñ toll am na yenn wax yu nga xam ne buñ ko waxee seen doomi dëkk. Mhm. ak tey moom ku jëgim doon diggante mag Macky Sall. on sànq. Mhm. moo tax ma ne la Adama Barrow dafa war a jël réaction rapidement wax ak Macky ne ko ne lenn rek lañ soxla mooy ne man ak yow nii lañ mel Sénégal ak Gambia benn la. waaye always sóoraale leen ne fitna bu amee ci diggante Casamance ak Sénégal Gambia dañ ciy nekk victime. dañ cee loru kon yàlla waay. sóoraale leen ni benn xooloon naa li nga xam ne tey amaanaa sax neexul benn doomu Gambien mooy kam bi nga xam ne ñu ngi ko def biir foo fooñi. on nga économique wala éco économique euh, nekk fa ñi ne non troupe bu sénégalais la. bataillon bu nga xam ne Sénégal lañ jóge ñoo fa ñëw représenter li nga xam ne moom moo nekk yi ECOWAS nekk fa. Mhm. rebelle yi Casamance yi wane ne loolu warut a am ndax Casamance ñoom ci seen gox la mën sax nga naka la fa takk deri Sénégal di ñëwee bëgg leen a ba fitna bi di jural Gambia problème boobu weesu ñoom neen ñi demaat ba defaat nii rënkum am seen diggante doomi Gambien si tamit nekkaat ci victime mu leer la ne ak lu munte xew. Mhm. bëri lu am Ziguinchor mën mhm. wala Kolda wala Wélingara. ci biir Casamance la bokk de. Mhm. doomi Gambien si duñ ci am benn problème te Casamance ak Sénégal la waaye lu am ci territoire bi ci diggante foo ñi ak li ko wër always ñin dañ ci day nekk victime. waaye Sénégal advantage boobu la ñu use ñoom. understand ñi def seen check bi ci biir Gambie pour mun a counterpart ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk rebelle yi léegi nag loolu la nguuru président Adama Barrow war a jël responsibility ne territoire Gambie ak suñ souveraineté na ko Gambien si sikiyoo because lolu mo fi nekkon 22 years yi passé. fitna bi amutoon bañ jël suñu last call bi Ibrahima Sinera mu ci bi Mr Sinera good morning welcome ñu ngi lay dalal ci programme bi. hello. yes hello. na ngeen def. alhamdulilah. man fu nekk maa ngi ñaan jaama ci Gambia. Ya? amiin yaa rabbi. di leen defal jaama ñun ñu am jaama. nañ wax gars ñu ñaan leen ngir ñu nekk jaama. amiin ñu ngi ay xale yu ndaw lañ ñun dañ jaagaa juddu fekk ak ñeen nekk benn yi ñëpp. Mhm. soo suñu yaay suñ papa yi fa nekk benn. Mhm. soo léegi dañ war a nekk benn. Mhm. suñ nekkul benn du baax ne yàlla nañ ñaan yàlla yàlla yàlla defal jaama. ñu nekk benn ñu bàyyi xeet ñu xalaat ëllëg because léegi àdduna jeex na fu ñu mujjee ëllëg kenn xamu ko. Uh-huh, uh-huh. kenn xamu ko bilaahi ñu ngi xeex loo xam ne ñun kenn xamu kañ ngay dee yal nañu yàlla musal si loolu yal na leen yàlla defal jaama yéen tam seen télé bi. amiin yàlla leen fan bu daag wér gu yaram yéen ñi fa toog yëpp ñu baax ngeen. jërëjëf yal na leen yàlla fay seen programme bi yal na dem kanam. yal na leen yàlla fay yéen affaire yi yàlla ngeen di doon leen dara àll ba ne yàlla. amiin yaa jërëjëf Mr Sinara euh, ñu ngi ko gërëm moom tamit ci contribution bi am na solo euh, thank you very much xam naa ne time bi daanaka jeex na pour tënk rek léegi euh, ma ngi doon wax lii est-ce que Sénégal misuñ benn opportunité bi nga xamante ne waroon nañ cee mën a jaar sax na rek régler problème bi mooy bu ñu winee Africa Cup Nation bi jëloon Sadio Mané jox ko coupe bi mu ànd ak team bi dem mu sànni ñu jaar fa wax waa Diourbel yi Casamance nañ ñi teg gànnaay yi Sénégal yëpp comme ni ñu nekkee woon benn gis nga ñëpp dañ boole waa ci coupe bi mu ñëwee loolu est-ce que foog loon opportunité la woon pour loolu am parce que gis nañ Drogba mu def ko Côte d'Ivoire ak yeneen ak yeneen ah, mu dem Bouaké play fa match bi gars yi win mu ne gars yi nañ teg ñëpp teg jàmm amaat ci réew mi wel man lu ma gis mooy ne Sénégal lu des si kexee Casamance bi ni duñ si euh, waxtaan mm-hmm. yes bu pour ñoom am nañ point bi already gos rebelle dootul mën a daw dugg Gambie. dootul mën a daw dugg Bissau léegi ñoom am nañ opportunité pour ñoom am nañ atu lu xew nii mistake bu rëy la si ñoom daf leen naxari lu ñu capturé woon seen seen doom yi noonu naxari na Sénégalais ami bi bu baax a baax a baax ba tax sa président bi commune comme ni ma ko waxee ne mm-hmm. dinañ ak anyhow ak li ñu si mënta jëlee dinañ ko fay pour ñu xalaat ay pexe ñu ñoo soo lay gën a pexe moom Gambien moo ko war a lal parce que right now ñu ñoo si ñoo si gën a sonn bu àll bi la gars yi ne am na dëkk yi sës si si boore foofu ñu ànd seen nit ñi daw neen Gambie moo si gën a sonn su su boobaa nag nguuri Gambie mooy jóg pour dem wax ak nguuri Sénégal pour ñu jéem a teg situé bu ko right now Gambie moo si nekk victime notre Casamance bu ko biir àll bi sax parce que ñoom tamit am nañu non lu ma miin sax mooy am nañu daw sax ñu si fii nii léegi waaw Gambie ñoo si gën a sonn right now waaw fu mu nekk nii lu si des mooy wota Sénégal moom am na ne jaamee nekkatu fi time boobu xalaatul sax di jéem a jege territoire bi nga xam ne Gambie moom fa time boobu noonu di bisaaw koregut waaye léegi mag Macky am na euh, mbaalo bisaaw am na aadama Gambia soo dangaa gis ne fu ne nii pour benn rebelle xalaatuloo daw dem bisaaw xalaatuloo daw ñëw Gambia wala nga ko doon xam ne ñii ñi ngeen a teg defuñ dara rebelle waroon naa dugg fii nga xool ñu ko riite fële duñ ko téye ñu nekk fii ñoo ko na def tab ñu nekk Gambie fii ñoo ko def tab téye ko gos yi loolu la am xam na ne am na piyo boo xam ne ni mun naa wékk ñële so ñu leen opportunité bu ñu amoon mooy bu ñu jàppee soldats yi ñoom itam wane seen boppa wane ne ñu fa nangam nangam moo tax soo xamee rek di nga xam ne lu mu yàgg yàgg gars yi dina leen attaque. waaw ok loolu jàpp nañ ne leen jàpp nañ leen def mm-hmm. bokk si one of ñu attaque rebelle ok so na ba doon ne ma wax ne parce que man pour man sports dafa war a waroon nañ see use loolu waaw man man fanaa keroog the following morning bi ñu toogee fii wax naa ko ne ñu ngi ci incident bi Sadio maane mënoon naa capitaliser. yeah waaye after man dama déglu waxi Ousmane sonk ma xam ne Sadio Mané sax mënu ci woon dara dañ ne ko lu tax bi euh, Sénégal jëlee coupe bi ñi invité la ñëwuloo mu a ñëwuma man li ma doon dama ko gëm lenn laa xam ne moo ma mën a booleeg Macky Sall la ñu gisante mooy muy ñëw Ziguinchor ma recevoir ko man en tant que maire wala muy génn palais may dugg palais. non waaye Sonko nag man sappootuma ko si loolu. waaw dégg nga dama lay wax Sonko ndiw Sonko lu muy wax dafay suuxat ay. maam su waxu Sonko bu ñu ko jëlal exemple Sonko nekkul ni ko ku rek bàyyi ñu ñun Gambie la nekk bu ñu jëlal Sonko exemple maam ñaan naa la rek Sonko boobu doon luy taal dëkk rek lay wax non référence lay def li ma wax non non non maam soxla wuñ Sonko kooku na dem yow nanga la dëkk di wii ne kopp nga ne ñëwuma waaw déglu ko nangam nangam waaw xam moom yow bëgg nga jàmm déedéet waaye léegi may moom soxna bu ñu bu ñu jëlal exemple jëlal ñu exemple si baro o ñeneen bu tegal Sonko fële Sonko is not in Sénégal bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu daan something la de moom moom waaw pare moom moo nekk seen maire bi tamit mooy seen maire loolu laa kilifa la fu mu nekk nii ci réew kilifa la fa léegi nag loolu ma ne la ne uh-huh. ndax waxam boobu sax indiwut fitna bi yow ngay wax foofu laa lay waxee ma dama déglu waxam ajjuma uh-huh. samedi dimanche on a ci guddi naka démb samedi nga uh-huh. dégg fitna bi am moo Manela, ma ne la pour saafara mu war am ndax ñoo ñëpp waruñoo toog ñi waxtaan ñu xool lan mooy jàmmi Casamance ñun Gambia ñi mun am suñ jàmm loolu moo tax ma ne la yooyu yëpp nag dafa bokk tey ci lu Macky Sall waaw ak autorité Casamance yi because kii daf ne ndax Sadio Mané mënutoon a indi jàmm jaarale ci ci nguur gi du moom rek because mënoon na ci ànd ak ministre of youth and sport ak sorry sport bi ñu dem fa nekk doomi Bambali Bambali bokk ci biir Casamance because Macky waaw doguma la Macky team bi yëpp la gërëm mhm. si luñ taxawee waaye dafa mention Sadio Mané in particular in Fazil mu sa mu sant ko iti keroog bu ñu doon dalee stadium bi soo ah, loolu man dama fekk waaye anyway time bi ko réglé si ci table bu ko ci négoci non loolu loolu nag moom moom ñaan loolu ko sa loolu moom moo moom moo ko war nag pour ñoom Sénégal pour ñoom weak neen already these people déedéet waaye koo fa mel ni itam duñ fi sax yeneen koo fa mel non bat bat bat moo ñaan bu dee loolu la approche boobu gënul Adama moo war a dem non approche ñu waxtaanee ko parce que right now Gambie ñoo si gën a Macky moo war a jiitu ci ne lii négociation négociation moo ko war a def Casamance déglul Macky Casamance ah, Russia ak Ukraine right now mu ngi ñu ngi ngi reyante waaye ñu ngi waxtaan at the same time soo léegi lan moo tam war a jërëjëf foog nga nangu ne fippu Casamance dafa jiitu Macky mu nekk ci nguur ok jërëjëf kon nag kooku bu ñëwee bu fekk lii muy gën a indi ay na toog waxtaanee ko ci table jërëjëf jërë ngeen jëf xam suba suba non ñu gër maam waaw maam ba suba ba naa éleg time jeex na waaw gars yi gars yi dañoo dog de ah ba ba ba suba ah, xam naa li ngeen bëgg a wax def leen yitteel waaye tamit ko wax wax waxtu la ñoo doge naa démb la am wan ya waaw waaw Thione Seck tamit tey la wan ya ndeysaan bokkoon ci ñun la euh, ji Mamoud Diop demam waaw Gambia yëpp daf leen daf leen leen marqué waaw Thione Seck tamit demam dafa marqué Gambia adduna la adduna yëpp ndax ñi doonoon kon tey faaw ñu ñaanal leen yàlla yàlla yërëm parce que wax dëgg yàlla nit ku bay waaram si réew mi la mm, ay mm, mm, euh, taxawaayam amoon na solo si réew mi bu baax a baax yal na yàlla gën a euh, amin defal ko tiraanga amiin amiin yaa rabbi soo xaar ay njabootam kat jërëjëf exemple la si mi waaw tege thank you thank you so much Modou Niang euh, ñu gërëm ko sant ko ak maam ji bi mbir mi nu mu demee la léegi-léeg suma gars yi suñu tàngee moom mooy loolu ba xam nga yitte ji ak euh, bugg a jàmm am euh, moo tax jàmm moom nañ nañ nañ dem ko nañ ko kon konne di ko ñaan waaye tamit nañ ko doxe di ko jëfee dafa am solo noonu rek la mën a demee xam naa ne du ñàkk fii ak ëllëg tamit développement ne na ci am bu ñëwee nañ ko gën a yaatal continuer fexe ñu kon ñëpp continuer dëkk ci jàmm jërë ngeen jëf yéen tamit ci ni dig daje suba lay doon incha allah ci Good Morning Africa fii ci Africa TV di leen wax jamu nañ ànd ak ngeen jëfati bye bye